Cheikh Mamadou Fata ngi lay nuyu. Euh, maa xam naa di nuyu ñi di wax rek wax bu gàtt mooy. as gor bu waxee da koy sàmm. dafa am lu ñu wax ñëpp dégg ko mooy. yónniwuñu kenn ci Ibrahima Wali Seck. doxloowuñu kenn ci Ibrahima Wali Seck. recevoir uñu Ibrahima Wali Seck. uñu ay ndawam. lu tax mooy ñun porté wuñ ko plainte. <laughs> moom moo porte plainte kuy wax demal nga wax ak moom. soxlawuñoo toog ak moom soxlawuñoo am ak moom relation na doxal àddunaam bàyyi ñu ñu doxal suñu àdduna loolu moo nekk li nga xam ne ñun moom la ñuy wax hmm. oustaz Makhtar Sarr yàlla dafa dogal ci teddaange la juddu ndax ci leeru alquran la juddoo ay maamama ki maamaat ci lañ juddoo ku xas juddu ci alquran teraanga mënatu ta weesu loolu kooku kenn dala mënta toroxal sunu conscience hmm. dafa dal Mmh. confiance bu tranquille lañ am. tiituñu rafuñu ragaluñu. Mmh. nit ki nag bu dee fi nga teg sa tànk xam nga. mbir yu doye di du la yëngal. loolu lañ am luñ ciy wax mooy mmh. daal dañu bëgg a wax ne. ku dégg ne toog nañoo Ibrahima Wally Seck wala ndawam. nga dégg ñu wax la ko. na nga jàpp ne amul. sant ñu kenn mu dox ci. recevoir ñu kenn. kuy dox demal nga wax ak moom. moom moo porté mbir mi. nañ dem wax ak moom. amaa nag ñaan ñun ñaanuñu maslaawuñu su fekkee ne na day dem ñun loolu man loolu moo ñun loolu ñu gënal mu dem ci yoon moo ñu gënal donte ñun dem nañ ci yoon ba pare ñun ci ban yoon ngeen jëm yoon bi mooy bu yàlla ñun sunu siis yàlla la yàlla mooy nekk sunu siis alquran mooy sunu awaka naka ngay demee ci alquran ba alquran layal la nag ñu ngi fi yéen a ngi fi bisimilah. kon mag ñi dafa am lu ñuy léebu. Mhm. dañu wax ne. Mhm. xale bu yaradiku. Mhm. ci naaj bu tàng. xaar ko ca taatu ndaala. problème yi bu réglé bu amee ca siis ñoo koy réglé. ndax ñooy wax ak rabbul izzati wal jabaruut. maxtaar. feseewul mbon. ci mbaax la fesee. ñi ànd moom. mooy ñoñ yàlla mm-hmm. doo ànd yàlla nag mbir yi di la mm-hmm. lan lañu ñu alquran jàngal mm-hmm. yàlla moonu jàngal ne ala bi zikrillahi tatmainul qulub dama wax benn mbir nit ñi mbir mii benn mooy mën a am mu am ay nijaay ak yaay ñu wax ak moom mu yam fi yamul bisimilaa bisimilaa gi nag làmboo na ñun liñ kenn lañ yaakaar muy yàlla oh, oh, oh. yàlla dafa wax ne ngànnaayu julit mooy ñaan yàlla te ñun sunu lépp yàlla la ci ginnaaw yàlla lañ wéeru wéeruwuñ ci ginnaaw avocat wéeruwuñ ci ginnaaw siis teerewul wali benn bu nekkee ci moom fukk bu ko toppee junne moo ñu topp ci te ci mbaax lañ ñu toppee comme duñ comparé suñ bopp ak waali ñun dañoo dépassé waali ak saytaane moo ko dooleel mm-hmm. ñun yàlla moo ñu dooleel mm-hmm. te nag gis nga dafa am lu mat a bàyyi xel mm-hmm. ay affaire kaso kasoo wéetaay ñun jaaxaluñu nit koo xam ne mën naa tëj boppam quarante jours mais kooku du ragal kaso occasion walay doon nga mën fa dem jàng alxuraan lu mu néew néew ñaari fan yu nekk mel alxuraan kon dafa am loo xam ne ñun ci tuumuranke lañ lañ màggee. Mm-hmm. lekk njaxas. Mm-hmm. tëdd fu tilim. Mm-hmm. sol tilim et kooku yooyu di la yëngal. su ko defee lenn mooy mën a am mooy na bàyyi. mbir mi yam fi. bàyyiwul bisimilah. bisimilah nag man bisimilah rek laa wax. lépp ci biir daal. xaw ma daal wax bisimilah. su amee su amee ay kilifa. danañ wax ak moom ne ko dee amul kilifa ñun moom dina leer. intervenir ñu ñaanuñu yónniwuñu recevoir ñu kuy wax na wax ak ñun amuñu dara lu ñuy wax ak moom. macha allah loolu daal loolu daal laa amoon lu ma cee